leen sama âge yëpp ñu ne ma ok mën nga ñu indi sa pièce d'identité ma ne leen man de ba ma divorcé sama pièce yu bëri ak sama passeport dafa réer Italie laa réer ñoom ñoo ma defaral këyit ñoom waa TFM këyitu juddu laa indi ñu xam sama âge normal pour mën ma defaral beneen carte d'identité ak beneen passeport mhm. loolu ba tey c'était 2011 Youssou Ndour ba mu waxee Kouthia daat ne ko woo ko Kouthia woo ma ma dugg bureau tonton Youssou ñu toog Youssou ne ma ça va ma ne ko ça va bien mu ne ma mës nga def télévision ma ne ko déedéet mu man daal lenn rek laa la mën a wax comme Kouthia moo fi indi xam nga te Kouthia moom nit ku baax la te yàgg na ak ñun loolu waxu kilifa la jàpp ko nga topp ko ma ne ko amul benn problème fa la yem ak man point yëkkati 20000 francs moom Youssou Ndour ne ma am paasal ma génn dama génn rek Kouthia génn ma ne ko kon maa ngi dem mu ne ma maa ngi lay woo léegi ma génn ñibbi ba ma yeggaatee sama kër sama frère bi ma àndal élage na ma mais est-ce que gis nga grand bi ma ne ko billaahi mu ne ma noo fis dal nga ci ma ne ko lii kay dootul caaxaan booy mhm. ma commencé nag ci sama bopp ma xam ne maa ngi waaj a nekk dara mhm. parce que lii dootul caaxaan comme dem naa ba gis Youssou Ndour ma yegg mag sama waa kër yi ñu may toogal élage ak ñoom am waa Colobane ñuy waxtaan ci affaire bi waaye yow ba nga gisee Youssou Ndour noo def ma ne leen man kay xaw ma sax lu may wax mais yow da nga ko waroon a wax lii lii ma ne leen man damaa rus aw ma lu ma ko war a wax man daal comme nee na ma validé na ma rek alhamdulilah. Mhm. ma daal di ñëw toog timis julli ba pare rek ku caa woowaat ma ma ne allo mu ne ma waa Endo nanga def yow de macha allah dal nga ci am nga chance bi dafa gis pilote bi rek validé. ma ne ko ah alhamdulilah j'espère que affaire yi moom dina dox xooluma ci xaalis xooluma ci dara mm-hmm. man naa ne ngéej génn si télé bi rek mm-hmm. yeneen opportunité dina ñëw mm-hmm. suñ may fay juróomi dërëm sax man xooluma si loolu yépp ma daal di ñëw première émission bi Kouthia ne ma suba lañ koy démarrer te direct lay doon préparé wul muy Kouthia Show ñu tegal ñu ñaari tabourier ma nekk xale bu ndaw tuuti ba dee ma ñëw toog ba ma toogee ma ne man nag caaxaan jeex na dëgg des il faut que ma créer ay affaires yu neex ci laa commencé di créer poté laa njëkk a créer poté ñoom El Hadj seen benn euh, frère bu doon wax euh, dafa gaañu yàlla na ko yàlla xare àjjana moo ñu joxoon moowu poté bi kolobaan la nekkoon ñu créer poté parce que da daan def luñ teg rek mu ne noo lii dafa poté ay ceebu yàpp ay pëyaayu poté lu mu wax ne mais xoolal kii dafa poté affaire bi amoon jàpp ci man neex ma ma indi ko ci télé bi ba ma ko indee ci télé bi poté boobu moo ma lancé Kouthia bu nee indo rek ma ne ko indo bu poté ngay am foofu lu mu wax ma ne ko poté lu mu wax ma ne ko poté émission bi foni ñu gis ne TFM télé bu bees la xam nga soxla na mm, ay divertissement lu foni ñu ñu doxal ñu doxal tak première émission maak Kouthia deuxième émission maak Kouthia su ma paree émission rek damay taal sama moto dem ñibbi ba benn jour euh, une semaine ñu def émission une semaine may ñibbi di jël taxi mu ne ma tey xanaa euh, indiwoo sa moto ma ne ko déedéet taxi laa laay jël parce que moto bi élage da ko yóbbu mu ne ma d'accord léegi bàyyil ma yóbbaale la ma ne ko ok Kouthia ne ma ban côté ngay wàcc ma ne ko man Cité Port laa dëkk mu ne ma kon man maa lay njëkk wàcc liberté laay wàcc man jamono jooy sax xaw ma Dakar xaw ma fuy liberté sama kër rek laa xam Kouthia ñu ñëw ba kenn fenn si ruq yi rek mu ne borom taxi bi may ma fii ma wàcc mhm. mu may ko mu wàcc mu ne ko déposé ko moom moo fay taxi bi taxi bi yóbbu ma ba sama kër mhm. mais léegi nag sénégalais yi commencé nañ ma xam mhm. commencé nañ ma xam bañ ma commencé xam benn jour ñu pare émission rek ku caane ma tey moom dama lay invité ataaya defaguñ tournage direct lañ war a def looy wax dama naan déedéet du ma ne déedéet dama ne ko waaw ñu pare tournage def tournage bi pare def yëpp mu ne ma kiiyal ñu génnee yow génnal ci buntu bii kenn bañ ñu gis man ma génnee ci bunt bee ndax TFM ñaari buntu la loolu tey na de <laughs> ma génn ci buntu bi ma wax taxaw fa mu ñëw parce que bu ma bu ma bu ma génnul ci bunt boobu daw te ma war a gisante waat ak moom def émission suba dina metti mm-hmm. ma génn xaar ko ba mu ñëw mu ne ma in faut que ñu dem liberté sama benn kër xarit naa ni ataaya ma ne ko man de xoolal dama taxaw di la xaar sama nuru bi woo ma ne ma sama doom yaramam dafa tàng mu ne ma ah ma ne ko ah mu ne ñibbi rëcc naa ñu defaat émission mu ne ma tey moom dinañ dem si sama xarit bi sama xarit bi da la bëgg a gis ba pare dafa tëyee dafa bari xaalis marlon ma ndimbaa la tudd jarbaatu ma dikke ñaa la yaayam ak ma dikke ñaa ñoo bokk ndey ak baay man kii lu muy wax xaw ma ko lu muy wax man turu Marlon xaw ma koy Marlon de mais dama ko jàpp ndax Marlon moo ma génne TFM man turu Marlon ma ndimbaa man dama bëgg a xam nu Marlon mel ah ma ne ko ku ci mu ne ma ma ne ko sama bon bi de ñëwul te sama doom dama ko dénkaane sama dëkkandoo yi ca suba ba tey bàyyil ma dem suba ma organiser wu jar na sax ma indaale ko ci bu émission bi jeexee ñu dem si sa xarit bi mu ne ma d'accord ñu parewaat émission loolu def presque ay vingt-huit jours vingt-neuf jours ñu parewaat émission mu ne ma non pot tey moom dañuy dem si si si invitation bi ma ne ko cent pour cent mais boobu amatuma lu ma ko lay lay naa ba sonn daw naa ba dee amatuma lu ma ko lay mu ne ma tey dañuy dem ma def ko yëfu saay-saay. boobu lan moo indi woon bi sa xel dafa teeyoon. non dafa am lu mu la bëgg wala. man du ma dem si invitation ku ma xamul. xam naa ne bu ma demee dara du xew. mais bugguma comme télé laa ne. nit gis ma fu dul télévision di ma baatal. pour lan man may pare liggéey di ànd ak samay boos ci ay ruq ak néeg man naanu ma attaaya fenn naanu ma attaaya mais dafa sa biir wax da nga mel ni da nga yàgg ñaaw njort ma commencé di insister ci ci ci invitation bi sama xel dalatul ci moom jour bi nga xam ne ci la ma mujjee wax waxu invitation bi dana ma tey dañuy dem ma ne ko d'accord dañuy dem mhm. muy sol summeeku di sol ay yéreem pour ñu dem ma daw ñibbi mooy ñaaw njort waaw damaa daw foofu moom parce que amatuma lay. damaa ne poccet génn rek daw. man ba may daw xam naa ni jour boobu laay gëj TFM. ma ne man invitation bii bu yeboo sama liggéey yàqu mais man duma si dem parce que lu mu wax dafa clair sama xarit laa lay présenté dañ la bëgg a gis ah télé opportunité la. bul fowee sa bopp mën nga cee am lu ne. sama xarit bu ma lay présenté yaayam ak ma Madické ñaa ñoo bokk ndey ak te xam nga ñoom ma Madické ñoo nekk pouvoir ne. man yu may wax sax man xaw ma woon loolu xaw ma woon luy ay pouvoir man man léegi laa bokk nii connecté wu forcé sama bopp xam affaire yi ma ne ko ok ma génn daw ba ma génnee daw toog toog toog kuccaa woowu laaj ma foo taxawee ana nga gisuma la ma toog julli timis julli gee mais man toujours maa ngi naan kuccaa su ma woowee du wax jàmm gis na sama téléphone bi dafa sone rek sama fit bi ni tëf mm-hmm. ma ne kii du wax jàmm tey allo Endo ma ne ko waa ça va euh, Kouthia na def mu ne ma maa ngi fi man daal dafa am benn affaire bu ma la bëgg a annoncé deux mille c'était vingt 29 jours laa ànd ak Kouthia ma ne ko loo ma bëgg a annoncé mu ne ma waaye man de ñi géré société ressources humaines mm-hmm. waaw loolu la ma wax mu ne ma man de xaw ma sax luy loolu mu ne ma man de ressources humaines bi ñoo ma woo léegi ne ma il faut que Amina arrêté émission yi parce que dafa vulgaire ay mbàkke mbàkke ñoo woote ci télé bi mm-hmm. ne xale bi ay waxam dafa vulgaire gis nga foofu man xam naa lu ko caadi wax yëpp du dëgg mm-hmm. ma boole ko nag di lox tiit parce que xam naa ne génn naa tele nit ñi commencé nañ maa xam commencé maa apprécier te kii dafa nekk pour yàqal ma mm-hmm. ma ne waaye garaawul ma ne ko ah léegi nag mu ne ma non léegi yow daal toogal nga dëglu parce que ñoom fi mu ne nii comme bëggatuñ la yaa ma gën a xam famille Ndour buñ la bëggatul dañ lay xeex te ñoom nee nañ ça va ça va ma ne ah mu ne ma waaw ci saasi ma lijjanti ba am ma woo ko tudd Dorine Gueye Dorine Gueye TFM la ne woon ñëpp war nañ ko xam ah, laa ko daan wax ma ne ko dorin mu ne ma ma ko affaire yi yëpp nu mu demee mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko man de Dorine mu ne ma man de xam nga lii duma si mën dara poté waaye léegi nooy def mooy ma ne ko jox ma numéro Ndiaga mu ne ma xaama yónnee la ko message Dorine Gueye yónnee ma numéro Ndiaga Ndour message boo déggee xale yi naan tonton Ndiaga tonton njaga ci laa xamanteeg Ndiaga ba ma ko joxee ma woo ko ne ko allo tonton mu ne ma waaw ma ne ko kii moo ma jox sa numéro maam Dorine mu ne ma kookal la ma ne ko man maay ànd ak Kouthia ci émission bi man la indo euh, mhm. mu ne waaw ça va nga def ma ne ko ça va bien ma ne ko man de damaa toog rek Kouthia ne ma nañ arrêté émission bi parce que ressources jumelles mu ne ma ne ko nee na parce que kii yi ci kaw kilifa yi ci kaw mhm. ñoo ne ñoom bëggatuñ ma ndax man dama vulgaire li ngeen di jot ci ay kalaame dafa bari ci man mu ne ma ah bon mhm. ma ne ko ah man de loolu la ma wax mhm. ma ne ko te jaaxle naa torop nga dema baax na dinaa la revenir revenir uma revenir uma ba ca lendemain ba man ma woowaat ko ne ko allo tonton man dégguma la man la Amina affaire yooyu mu ne ma lii man duma ci mën dara mm-hmm. parce que télé bi bébé la mu ne ma te télé bi soxlawul coow te tey comme yow moo la fi indi ngeen am problème mu demee nii mm-hmm. yuusu nekku fi Boubacar nekku fi mm-hmm. boobu yuusoog Boubacar ak euh, Viviane dañ dem Amérique temps yooyu ñi ngi sëy ñu dem Amérique njagane ma ñoom ñëpp dañ voyage yi te nekkuñu fi il faut que nga bàyyi ba ñu ñëw ñu regle ko ndax heure bii lu ma ci def mën na mën na mer bindal tele bi loo xam ne télé bi soxlaa gudd loolu ndax tele bi bébé la ma ne ko d'accord foofu tamit amatuma yaakaar ndax dama jàppoon ne su ma waxee rek automatiquement njaga daf ma naan non kon defal leneen mais li mu wax tamit am na si ma ne ok c'est yoon jeexul lu dul yàlla neen la ma toog rek benn jour ku tudd Abdou njaay woo ma boobu fekk na commencé naa génn sax sama xel ci tele bay xool leneen lu ma def ma toog salon Khady Ndoye HLM di defar sama bopp rek ku tudd Abdou Ndiaye woow ma mm-hmm. ba ma Abdou Ndiaye woowee ça va na nga def ma ne ko maa ngi ne ma man la Abdou ma ne ko kuy Abdou mu ne ma Abdou Ndiaye 2STV ki ma toogal ne ma doomu El Hadj Ndiaye la mm. ma ne ko ah ça va nga def mu ne ma dañ la bëggoon euh, dañ soxla woon rendez-vous ak yow mm-hmm. ma ne ko ah yéen fan ngeen nekk mu ne ma 2S ma ne ko 2 fan la nekk mu ne ma banque xaw ma nan mm-hmm. ma ne xaw ma fii ba ma waxee banque xaw ma nan man tamit ma ne du ma nekk sax di sonal kii damay couper laaj banque boobu fan la ne si Dakar ma dem fa su ma demee ba si banque bi woo leen mhm. ma yegg woo ko ne ko yegg si naa mu ne ma d'accord temps yooyu bureau El Hadj Ndiaye boo duggee lépp ay bois la ku mës a dem 2S mës a dem bureau El Hadj Ndiaye mhm. li ma leen di wax di ngeen ko xam mhm. loolu bi la 2011 waaye ba ma Kouthia indilee problème deful 15 jours nit ñi gisatuñ ma bind ko Amina euh, dàq nañ ko TFM Amina lii Amina lii Amina lii waa 2S woo ma ma dem ba ma demee toog ak ñoom ñu waxanteeg man li nga xamante ne ñoom lañ bëgg ba ñu waxanteeg man li ñu bëgg fi ma toog di wax ak ñoom ba nga xamante ne dara desul pour man ma accordé pour liggéeyee 2 ma gis benn numéro 813 xaw ma tag-tag rek ma wuyu allo mu ne ma ça va kookal la euh, Endo ma ne ko waa kookal la mu ne ma man la bubakar nduur rek ma ne ñooñu est que mën naa génn wax téléphone ndax sama waa kër ñoo may woo sama doom moo feebar boobu foofu laa tàmbalee foofu laa bëgg a nekk ma génn ba ma génnee ma wax ak Boubacar Ndour ça va na nga def man ko ça va mu ne ma Youssou Ndour moo waxoon nañ la laaj lan moo la dal ba li euh, ñëwatoo si tele bi ma ne ko man de Kouthia moo ma ne waa tele bi dàq nañ ma mu ne ma ah bon ma ne ko waaw mu ne ma nu mu demee noonu ma ne ko ah man xaw ma defuma dara damaa jékki-jékki rek mu ne ma télé bi nee nañ da nga bëggatuñ la dàq nañ la bu ma ne ma baax na léegi euh, suba 13h di nga am jot ma ne ko waaw mu ne ma suba 13h na nga ñëw TFM mhm. au lieu ma dellu ci ñam ñama doon waxal pour nga xam ne xale xelu xale mën na jàpp nit mhm. au lieu ma dellu ci ñama doon waxal ni leen euh, réunion bi dañ koy wax bi dañ koy kii ba beneen yoon parce que man damaa am euh, sama doom dafa feebar mais damaa dem au lieu ma def ko damaa génn rek daw déedéet ñibbi suba rendez-vous lañ ma jox da waxuma leen dara man dama jóge foofu rek daw dem ñibbi sama kër mhm. ba ma demee ñibbi sama kër suba jot ma sangu ba set sama yére taal sama moto dem mu wuyu ji Bouba Ndour ma yegg si ne leen dama fi am rendez-vous ak buuba ñu ne ma ok toogal xaar ko ma toog bureau Dorine buuba Boubacar ñëw ne ma ça va na nga def ma ne ko ça bi bien mu ne ma yegg si ñu toog ci benn fi ñuy defee journal euh, TFM mhm. ay weñ moo fa woon ñu toog ci ay type mu ne ma affaire bi naka la demee ma ne ko man daal Kouthia defuma dara chaque jour daf may invité benn kër ak attaaya ma bañ saa yu ma invité ma wax ko ne ko munuma dem tey munuma dem tey ba benn bés mu invité ma ma daw mu woo ma yegg sama kër mu woo ma ne ma télé bi dàq nañ la parce que yaa ma gën a xam fami Ndour tak tak tak buuba àdduwu ci ne ma ok mu ne ma soxlawul stress àddina loo gis rek opportunité la mu ne ma léegi dinañ xool émission xale ñu defal la ko ci la ma buuba nduur njëkkee créer concept boo xamante ne Bessél Basse lañ ma boole loon mooy tourner émission boobu génnul après ci lañ ma booleeg Aïssatou Diop Fall mu may defaral ay émission pour ma mën a génn ci télé bi def nañ luñ mën pour ma génn ci télé bi xam nga émission boo koy defar day jël temps ñuy tourner rek di teg di tourner rek di teg temps yooyu looloo amoon tourner nañ ak Oumou Sow tourner ak keneen ak keneen jël yëpp mu nekk en boîte ba benn jour ñu ne ma dafa am benn émission bu tudd Dakar na door paa temps yooyu dakaar na door paa ñaatam moo ko doon def nday ndaak ak euh, ak euh, Bessel ñu dugal ma si dakaar na door pa mooy suma première émission bu ma njëkk a def rek réussir ko mbuur laa ko defee suñ koñ naka laa réussir réussir émission boobu dakaar na door pa nit ñi naan mais indo ñëwaat na indo ñëwaat na affaire yi di jël ampleur rek ku caa xëy génnaat ne waaw temps yooyu maa ngi am copain bu tudd amoo Diop mu nekk Allemagne sama xarit la yar ma moo Kouthia ñoo bokk benn koñ HLM amoo woo ñoom ñëpp waa HLM woo Kouthia ko mais yow kii yaa ngi koy xas di ko wax ay caga te xamaloo ko dara dama def émission bi réussir ko rek temps yooyu maa ngi am benn opel bu tudd war ngeen ko xam bu rouge bi médul benn de portes bu rouge la nit ñi di ma tooñ naan ma léegi bàyyi nga moto yaa ngi ci oto ma ne ko waa man gis ngeen nii rek lay doxee ku caa rek génn ñu taf sama oto ci internet bi naan waaw ñu ngi nii ay caga lañ jël favoriser ko jox ko oto ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk di def liggéey bu mucc ayib kenn joxuñu dara fii nekk fi cagaa nekk fi nit ku baax ay nit ne ma mais lii démentir ko ma ne leen ax ah, comme ci loxoom laa jaar ba dugg fa duma ma démentir. est-ce que moment boobu jéem nga woo Kouthia euh, laaj ko lan moo gën a nekk seen problème ngeen jéem a essayer toog yéen ñaar ngeen waxtaan. man gis nga Kouthia jour bu mu ma dàqee lu may wax bu dee du dëgg sama yaay fu mu tëdd yàlla naa ko fa fekk gis nga jour bu ma dàqee jour boobu laa supprimer numéro Kouthia ba tey jii aw ma ko mhm. jour bu ma Kouthia dàqee. jour boobu laa supprimer numéro Kouthia ba tey tey tey aw ko bu dee lu may wax du dëgg yàlla naa fekk sama yaay fu mu tëdd yàlla na ma yàlla rey jour boobu laa gëj a am numéro Kouthia ba jonnos yàlla tey ndax man ku ma def lu metti ma bàyyi la man noonu laay dunde su may ànd ak yow ngor rek la ñuy ànd mais man dékk nga def ma lu metti lu ma teree nelaw man dama lay bàyyi ndax Kouthia jamono ji may dàq metti woon na torop ci man nga génn télé ñëpp commencé laa xam mu dàq la ndax daf laa bëgg a may copain yam nga bañ mu ne ma TFM bëggatuñ la dàq nañ la ci laa gëj wax ak Kouthia ba tey jii nii te terewul Kouthia dañuy dajale si télé bi fu ma ko fekkee dama naan ko mais père nu mu demee mu ne ma waaw ça va ça va amul fit suñu bëti ñeent def naa lu ne pour Kouthia bëgg ma pour ñu séq jàmm ndax man maa ngi xool rek bés bi ma Kouthia indee ca télé ba Kouthia fu ma ko fekk damay ñëw fekk ne ko mais démb gis naa la mais toj man du ma seetaan Kouthia mais fu ma ko fekkee dama naan ko mais seetaan mu naan waay dëgg la kay Kouthia du wax ak man. da ngay éviter fu ma Kouthia bu ma njëkkee gis sax duñ daje. te man fu ma séenee fee Kouthia au lieu ma wiiri comme moom nu muy def man damay dem si wetam pour nuyu ko romb man du ma ko daw defuma ko dara mais Kouthia fu ma seen daw. Kouthia buñ mbëkkantee ci tele bi rek dafa ma yéex a gis. kon Kouthia moom du sama xarit boqumaak moom yoon. ci réseau lañ daje bañ dajee ci réseau xàmmeewuma ko gisuma ko kon warul taxaw di ma waxal dara Kouthia bu ngeen seetloo émission bu mu def tudd na si sama tur man émission bu ma def gërëm naa ko ci nee naa gannaaw yàlla ak yonentu beeg Youssou Ndour Kouthia la loolu même bu dul dëgg ci sama xol dama koy wax chaque jour te Kouthia émission bu def rek tudd na si sama tur maa fi indi ñoo xam ne ci lëndëm laa leen jëlee man Kouthia ci ban lëndëm la ma jële ki leen dajale fii muy yéen ñëpp medin juuf la tudd Médoune xam na ma bu baax xam samay mbokk xam fi ma bokk man Kouthia fekkuma ci lëndëm Kouthia daf maa fekk may xale bu jigéen mel ni ma war a mel mu jël ma di ma jàppale am lu lal jàppale bi ba ma demee ba xam ne kii jàppalewuma te yàlla tax am na lu mu bëgg ma bàyyi ko su saaga daga noonu dinaa ko wax lu métti tey mais duma saaga ndax ñu baax ak may seetaan ñu bon di ma seetaan tey dafa laal sama xol su waxoon caga rek ma baal ko su waxoon Amina dëmm la ma baal ko mais le fait mu yeewu naan Amina ak Viviane dañoo mës a marié wu man fii Sénégal ku fi nekk giwin yaa xam man ku ma fréquenté xam ne giwin nga man dama lay bàyyi man Viviane su ma ko xamaloon giwin du ma ànd ak moom barki naa Muhammad peut-être leneen moo ñu boole am naa droit su ma mënatul a nekk ak yow mais dama lay bàyyi. kenn du ma forcer kenn. mais man Viviane ci xuloo bi ñu bëree bëree bëri dañuy ñëw ah, waxoon nañ la ko yaay ànd ak ku ne ma ne leen mais yéen kii xamu leen ko man li ma joteek moom yéen ñëpp xam ngeen ko mais ay affaire mais kii waa du lu sit du nangam ma ne leen man de kii bu dee mës naa koo gis mu laal dorog man yàlla naa. yàlla bu ma dajee ngërëmu sëriñ Touba lu may wax dëgg la de mhm. man faale wu ma kenn mhm. nit nag su xamee ne nii nga mel nam mel mën na koo nëbb pour nga pour mu bañ nga xamal ko ko mhm. kon man xamaluma ko bon moom li may coow yëpp baat yi ma wax TFM du ma tux du ma naan du ma caga duma giwin loolu yàgg naa koo wax ba may ànd ak moom Viviane loolu sama sama slogan la man da ngeen di dem ngeen xool émission yu njëkk yi ma def sans Viviane mën naa mer nag ndax lu ne ci xol feeñ ci kanam man ku ma xam ni giwin nga man duma ànd ak yow man jumaa fuu ci lu nit doon sama yoon ne wut ci seen giwin ku nekk giwin ak ku nekk góor jigéen ku baax ku bon man sama yoon ne newut ci ñoom man xam nga lu ma ñor du man je suis casanière duma jël sama àddina xañ sama bopp boîte nu mu neexee xañ sama bopp restaurant nu mu neexee xañ sama bopp ay xarit nga xam ne toog ñu lay waxtaanal nu mu neexee ma tàqale sama bopp ak lépp toog benn imbécile bu mel ni ku caa di ma yàq man te xamuñ ko ci man alors sénégalais yu bari dañoo am interogation ci sa diggante ak euh, Viviane euh, tey mën nañ xam les véritables raisons naam bu fekkee mënoo ci dugg sax au fond Euh, li tax ngeen tàkkale leen parce que ñëpp dañu kontaanoon gis la ci wetu Viviane mais le fait que gisatuñ leen loolu mu suscité ay interrogation fii kilifa yi ngeen fi xam yëpp am na ñu si seeni seen i doom ak seen taalibe waxu Viviane indi fi mhm. loolu intéressé wu ma mi ngi ci sama gannaaw li ma intéressé mooy li ma kuccaa def mu metti ma te ma am ay doom ami mbokk am ay xarit mhm. man waxu Viviane ba ma ca paree teg ko ne laa ko teg ne mhm. man damaa bëgg a xam kuccaa xëy na yàlla dina def ñu dem ba daje ci kanamu yoon mu wax ma lu ma yabee ba teg baatu giwin ci sama der bii te mu leer ko ne li muy wax ay duul la waxul dëgg day fen alors ban réaction nga njëkk am bi nga yeewoo gis audio bi audio bi tas mais sama kër na man ba ma gisee drapeau couleurs yi dama tiit LGBT bi quoi mais man loolu bugguma ko man loolu bugguma ko mais ci ojo bi ñu ñëw ci ñu leeral dañoo dégg muy wax ne eh, bi ngay nekk ak Viviane ci tuuma yi mu lay tuumal boobu yaa ngi nekk ci buum di sëy ak sa jëkkër 3 mois nga dem sëyalil Viviane. bon yow loolu xam nga ne sax amul gën a loolu man daf may def reetaan réew mi même giwin yi sax defe naa sëyuñ mhm. yéen da ngeen bë yéen a bëgg waxtaan mais xam ngeen ne fii giwin yi fi nekk sax sëyuñ amul benn giwin bu fi takkante mhm. te gis nga yow li nga xam ci giwin rek laa xam ci giwin mhm. da nga koy dégg doxagoo ba fekk ñaar jigéen yuy sëy ah li ngay dégg góor jigéen yëpp doxagoo ba fekk benn góor jigéen muy sëy keneen xam dañ koy dégg mhm. Mhm. mais lu tax man ma war a tuumaal nit yi man en tout cas sama loxo ci kaw mhm. man xaw ma loolu man duma ma giwin te kuy giwin mu leer ma man duma la fréquenté ku ci nekk giwin na xam ne bëgguma ko nekk sama xarit bu yeboo nga nëbbu ma ko ndax bu ma ko yëgee duma la weer mais dama lay bàyyi mais ni ni ni toll ci accusation Amina Poté am tur am njaboot am ay doom nit ñi di ko seetaan ñu jékki-jékki teg la yenn tuumay sa kaw sa diggante ku caa yow lan nga naa def mais sama diggante Kouthia lu may def lu dul mais yoon attañu mais lii du fawekaay parce que loo xam ne daf ko wax ñu jël drapeau bu ma gën a bañ man man drapeau boobu man drapeau boobu dama ko bañ mhm. man taalibe sëriñ Touba laa mhm. luy tilimal yoonu murit du jóge ci man mhm. man bañu ma ko ma bañ de man tey mën nga ma xool duma la neex fii yéen ñu fi daje yëpp du ñëpp laa saf mais amul kenn koo xam ne ci yéen journaliste yi mën ngeen maa waxal dara fii nit ñi nëbbaluñ kenn mhm. Sénégal yéen ñëpp ku ci nekk ngi moytu mhm. ndax bañ sa ayib génn mhm. je suis pas parfait waaye lii di ay xetu drogue lii di ay yëfu giwinantu lii di ay ay ñu ñàkk fayda am jëkkër am far ay taxawaalu ñu lay tëddee gose ak droite loolu du man fii yéen ñi taxaw ñëpp bari na ñoo xam ne xam nañ ma bu baax bari na ci ñoo xam ne seen gannaaw caméra lañ ne mais ku leen joxoon micro ñu wax lii dama dafa ñaaw man sama yaay dafa gaañu bàyyi ma ak sama ñaari mag waaw sama ñaari mag yooyu yaru génn ñu tele waxuñ rajo am seeni njaboot lu tax man ma war a tuumaal seeni der est-ce xam ngeen wax lu nit lu ñaaw nu mu mën a def ci fameem mhm. ku ci génn ñu naan la sa raq bi giwin la wala sa rakk bi góor jigéen la mais loolu neexul fii nag kuñ fi wax giwin ak góor jigéen génnoo défendre sa bopp mhm. xëy na yaa xam lan ngay bañ mu génn ndax fii moom ku taxaw ne duma mhm. ñu génn ko boo ko nekkee dana génn de fii moom kaay ma wax la à suivre yaa ngi fii mhm. xam nga lu fi nekk mhm. jàpp ci loxo nit wañ ko ne ko bàtt mu sedd dafa njaboot mhm. mais fii ku ne am nga archive man ku ko am génne ko nga baal ma rek ñu bëri tey ci ko toog toogaale ko nopp mais loolu kiñ ko tuumaal génnul xëy na dafa dëgër rek mën naa am du mais yàlla moo ko may esprit dépassement te Youssou Ndour mën na dégg lu metti lu ne ci àddina mhm. mais liggéeyam mayu ko mu génn di wax mën na ko muñ du yow da ngaa génn rek doo loolu parce que da ngaa génn bëri ñu ñuy tuumaal liñ leen di waxal du dëgg ba pare ñu muñ ko noppiwaale ko ñoom dañ ko mën a muñ seeni doom miis ko ñu tàggat seen doom ci loolu yuusu nag moo yooyu muñ ndax ko am njaboot ju la dëfal am ndey juy dund di la dëfal am baay joo xam ne boo yëngoo mu ñëw taxaw am ay rakk yoo xam ne ponkal lañ ñi yow yaa yey dal ak sa entourage say xarit man aw ma ndey aw baay aw ma entourage bu dëgër bu ma war a dëfal man li ma mën mooy di dëkk di satal sama dar ba keroog may ñibbi yow marxiyaam te wax ko démb ci tele ma ne leen xaw ma ndax 2024 dina ma fi fekkam déet de mais lépp lu ma nit mës a def muy ronger sama xol te du dëgg bu yow marxiyaamee danañ ko la yoo te li gën a metti baalu nit mettiwul de dem baalu nit ki bala moo dee metti mais xam nga lu metti yàgg a waxal nit lu dul dëgg ba mu wan la gannaaw mhm. keroog ngay suivre les conséquences ci kaw suuf nit ki dem na tranquillement mais yow mi koy yàq ci kaw suuf keroog doo too am jàmm mhm. te Kouthia nag dafa yàgg def lu bon yàlla da koy soog a weer ndax lii yëpp sax waruma ko woon def mhm. ndax yàlla daf maa fayul parce que yàggul dara la taxaw ci tele bi coowu jàmbur ñu dugal ko ci biir coow li mu taxaw en direct def yëfu góor jigéen di ma saaga en direct di ma wax lu ko neex ma muñ loo ko yàlla yàlla atte ñu mu dégager TFM pour mu duggaat fa kilifa gu ne ñaan Youssou nduur pour Kouthia duggaat saraxu àddina bi yëpp la woo saraxu pour duggaat moom du rus ndax yow moom nee na moo ma indi TFM ci moom laa jaar ma doon li ma doon fekk ko fi presque trente ans de carrière doon li ma doon am li ma am ci réew mi njaboot ci réew mi kenn mënul xas sama njaboot mais moom tey nit ñi xamoon nañ na baaxul demee tey caa xaslu na askanam parce que ay audio moo fuité te audio bu fuité weeraange suñ borom la lan moo tax mu fuité jigéen la doon doxaan kon moom kum takk dala fen ba takk la daf ma fenal ñu jàpp ko fenal keneen ak keneen du man rek la waxal audio yi 110 audio la sama bos laa coppati man ndax man sama bos moo ma ñor je m'en fous ci yeneen mais waa man sama bos moo ma ñor mhm. man sama bopp laay défendre mhm. sama doom yi ñu ngi may xool mhm. dama leen di jéggalu ci yi ñuy wax seen yaay ak samay mbokk mais dama leen di wax ne leen ñoom sax xam nañ ma ñoom xam nañ ne man nekkuma ci benn nonsense ndax koo xam ne yéenay añandoo yéenay reerandoo kuy dugg sa kër xam na kuy génn xam na samay proche ñëpp xam nañ mais dama am ay soppe yu jotul ci man te toujours ñun ñu ne la sa soppe bi dégg nga liñ ko waxal kooku na dama koy rassurer na tëdd nelaw réew mi bañu ma ku ma xool ba jéppi ma mais kenn mënu ma fee yàq ndax fi laa dëkk fi laa màggee te fii laa tekkee man am na yoo xam ne duma jël sama doom di ko teg lu metti pour mu baax man may déraper bu boobaa dina wéet ne sama yaay nii mu ma bëgg a yaree te melu ko pour lan doom mënoo koo yar te baaxoo soo bëggee éduquer sa doom da ngay baax ba pare fii ñi taxaw ñëpp tey dañ bëggoon a wax mais man borom dëj bi mën naa ko jooy may wax sénégalais yi ndax ku wax lépp di nga wax loo warta wax fii rek laa yem parce que li ma denc bari na su ma bëggee génn yëpp dinaa wax lu ñu ma xeebe li ci des yoon laa koy teg ci loxoom mhm. mu lijjanti ko ndax dëkk yoon lañu ne mais bëgg naa ñaan sénégalais yi mhm. lenn mhm. saa yu ma yeewoo ku ma bëgg di am naqar ci man maa ngi lay tuubal parce que bëgg koo xam ne xamuloo ko dafa metti ñuy teg ci daram yoo xam ne mënoo ko ko demantiiral metti waaye man nee naa leen ba àddina di tukki mënuma garanti sama benn mbokk walla sama benn doom mais man Seydina Muhammad xam ne ne musuma bon bëgguma bon te duma mës bon ba àddina di tukki loolu rek laa leen mën a garantil man waxuma sama njaboot beneen affaire bi ñuy wax ci man nañ ma yërëm tuuti parce que jigéen joo xam ne laa ay bu ngeen xamoon li ma yenu jàmbaar laa de aw ma ndey man du ma victimiser wu ah. Mm-hmm. parce que mënal naa sama bopp yàlla laa àndal. Mm-hmm. j'aime pas taxaw ci télé aw ma yaay aw non non non non non su ma nee aw ma ndey mooy yërëm leen ma tuuti nag. parce que mm-hmm. lépp man duma ko attan. ndax man sénégalais yéen da ngeen ma war a nag da ngeen ma war a jàppale nag. parce que jigéen ju sàccul fenul naanul duggul ci benn nonsense saa yu ngeen yewoo teg ci sama der loo xam ne damay génn duul loo ki ko wax ne la kii daf ma jiiñ giwin Kouthia moo taxaw jiiñ ma giwin day fen dafa fen ba takk jabaram fen ba am ay doom ndax audio yii génn yépp ku ko déglu xam ne audio yëpp da cee kàcc da cee kàcc tey man soo ma nee Amina dangay naan ma taxaw démentir ko mais Kouthia bu taxawee ne man du tux du ma naan man damay taxaw démentir ko ndax man ba ma ko fekkee Obama lu flag la teg di ko naan ah day fen moom lu mu waxal nit rek mën nañ ko ko waxal Kouthia moo indi njaay TFM. Mhm. moo ko jox naqar bu ko rey. njaay hmm? Ndiaye dañ ne dafa am problème mu foie. Ndiaye Kouthia moo ko teg stress su àddina avant muy dee ñi jege Ndiaye ñëpp xam nañ loolu fu njaay toog dalay nettali li ko Kouthia def ba dee. Hmm? keneen ku nekk noo loolu man xaw ma mhm. ndax li muy def ñëpp. Mhm. Kouthia da ngay nangu ànd ak moom nanguwoo jóge ci wetam. loolu lay dund. moom daal day bëgg nga nekk ci ginnaawam quoi. Kouthia moo ma indi TFM mais dafa dem ba supporteetul sama talaamal mhm. loolu moo indi coow li dafa man nag ku caadu moo may téye mhm. wax ju ñaaw jii mu ma waxal moo tax ma génn mhm. na ma na ma na ma bàyyi na sénégalais yi ko jege wax ko mu bàyyi ma ndax man jotewuma moom dara ah. man TFM nii laa fa duggee te nii laa fay génnee aw ma fa kenn xaar ma yàlla man nee naa leen duggeewuma TFM promotion canapé musuma leen a tardeel mësuma leen a lekk mësuma leen a ñaan duñ joxe edd ba ma bokk ci kon man nañ ma bàyyi tout tranquillement buñ bëggee jigéen ju ñu yàq wala ku ñàkkal fayda nañ ko wuti man damaa am ay mbokk ñun ñett lañ sama yaay ñetti doom la fi bàyyi may caat kon nañ ñu yërëm te xam ne ñun njabootu Fat Joolaa ñun amuñu ndey fi ne amuñu bàyyi nañ ñu bàyyi buñ jaaree ci man di ruiner sama famille bàyyi leen ma mais mais mais ci problème bi ah dañoo gis euh, ci ci compte TikTok bi ah mhm. ñu ñu ñëw ci euh, compte TikTok bi dañoo gis sa photo lañ fa def loolu metti na ma torop ndax moom laa njëkk a kaas sa photo lañ fa def loolu ki bëgg a yàq moo ko def mhm. Mhm. ndax man li tax ma yem ci man kenn yónneewuma ko man dama dugg yeewu rek dugg si TikTok di di seetaan di seetaan rek yem si ñu ne Kouthia dafa dóor jabaram ba jabaram avorté ma ne ah man de Kouthia donte mosumaa waxal jàmm mais moo ma indi TFM sama xol sot Mm-hmm. ma ne man damay liggéey lundi su ma liggéeyee lundi mm-hmm. dinaa défendre Kouthia mm-hmm. ma ne waaye bala ma koo defendre xaaral ma xool histoire bi nu mu demee ma gis ñu sama profil sama photo foofu ma dugg cliquer sama photo ne kii kan kon moom moom compte bi ma gis ni compte bu bees la loolu moom du gan ci yéen ndax yàgg ngeen gis nit yu ñu def profile ci TikTok mais naka laa def nii bëgg a xool histoire bi nu mu demee pour suba ma mën a défendre Kouthia rek ma gis drapeau bi ak sama photo mais ma déglu ko rek ku caa naan Amina ak Viviane sëy nañ trop mais kii kii fenkat la mais dama dof ba ma déggee loolu yow laa njëkk a woo mais loolu nu ko nit di xalaatee mais man waxuma la jooy mais sama doomu yaay yi nga xam ne seen yaay dafa dee ñu yaakaar ma seen doom yi yaakaar ma di ma tiitaroo mais mais mais ñoom mais moom mi ngi yàq famille jàmbur mais Kouthia na arrêté yu bonam yi muy def lii nag duma ci avancé fii laa koy yemale dinañ jàkkaarlook yoon ku caa wax ma moom man lu ma ko def ak lu mu ma yebee ak lu mu ma mës a xamal ndax nit ki bu demee ba xamalatu la dara di la fenal boo ko arrêté wul mën na laa rey mhm. wasalaam maa ngi jégalu ñëpp